tey 24 mars 2022 moom la ñuy euh, jagleel ci àdduna warngal këpp lépp luy xeex bu jëm ci saxat bi xamante ne moom lañu ñu woowee tuberculose Sénégal dëkk di ci taxaw taxawaayam muy taxawaay bu mat ñu tànn seen dëkk Bambey pour ñëw defi ko bon tey mën nañu wax ne Bambey mooy fii ci Sénégal capitalu xeexu tuberculose bi xamante ne moom lañu ko jagleel rek tuberculose nag mooy feebar bi xamante ne ci feebar yi wàlle mooy feebar bi ci gën a rey ci àdduna mën nañu jàpp ne fukki million wu nit dana leen rey par at loolu mu ngi tekki ne fanweeri junne nit danañu leen rey par dana leen rey par bës bon dëkk feebar boobu feebar bu doy war la bu ñu war taxaw pour xeex ko àdduna bi nag taxaw ne dañ koy xeex parce que dañ ko bëgg génn ci àdduna bi avant deux mille trente loolu nag dëkk bu nekk war ci bay waram senegal nag ñu taxaw pour génne ko fi. mais war nañ ci def ay jéego yu mat parce que boo jëlee Sénégal am na téeméer ak fukk ak juróom ñett yoo xamante ne mi ngi ci ñaar fukki junne sénégalais yu nekk ñaar fukki junne sénégalais yu nekk boo leen jëlee rek taxaw leen am na ci seen biir téeméer ak fukk ak juróom ñett ñu ko am bon dëgg war nañ taxaw ñaar fukki junni sénégalais yoo jël rek am na fukk ak juróom-ñaar yu muy rey yoo xamante tuberculose da leen di rey loolu dañ si war a taxaw pour génne ko fi pour bu réew yëpp dajee en deux mille trente cinq ñu ne moom tam génne na tuberculose si réew loolu nag am na région yoo xamante ne fa la maladie bi gën a tar région yooyu mooy Dakar mooy Thiès. mooy Diourbel mooy Kaolack mooy Saint-Louis ak Ziguinchor téeméer boo jël fanwee rek ñeent yi mu ngi région de Dakar donc concentration bi foofu la si wàllu tuberculose amul dara loo xamante ne da ngeen koy fay dépistage bi ba traitement bu ngeen ko amee rek dem kër docteur amul dara loo xamante ne war ngeen ko fay loolu nekk na si taxawaay yi xamante ne état bi taxaw na taxawal nañ aussi ay jumtukaay ay laboratoire yu mucc ayib yoo xamante ne amu fi woon ñu def ko pour que diagnostic bi gën a efficace mais fépp foo dem si réew mi itam di nga fekkee laboratoire yoo xamante ne fa nga nekk danañ la fa mën a defal sa analyse wax la lan moo la jot xeexu ren bi nag dañ ko jagleel tur ak pas-pas dañ ne nañu génne xaalis bu bëree bëree bari dugal ko ci tuberculose pour que ñu muccal effectivement askan bi ci rey bi tuberculose di rey loolu la ñu jas jaglee xeexu ren son excellence le président Macky Sall ak gouvernement du Sénégal taxaw nag def ci taxawaay bu mat parce seetlu nañ ne téeméeru sénégalais boo jël am na fanweer ak ñett yoo xamante ne am nañ tuberculose te xamuñ ndax am nañ ko ñuy dem ci bureau yi di dem ci transport yi di dem di liggéey yi te dépisté wu ñu leen loolu la ñuy wax les cas manquants yooyu nag mooy tax feebar bi di law parce que bu ñu leen xamee mën leen te faj leen mais bu ñu leen xamul te ñoom sax xamuñ ne effectivement dañ ko am day jafe ñu téye feebar bi. bon nag hôpital Livaudou dégg naa danaa remonter effectivement la préoccupation ñu xool ko dans les investissements yu ñu war a def vers deux dans le cadre d'un système de santé résilient et pérenne mais de jàmp te jàmp war si taxaw. te si loolu sañu ma leen yomb ba 2024 mooy le renforcement du centre de santé de Bambey bon madame la directrice générale madame euh, docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye maa ngi lay boole médecin chef région sur le pilotage de madame le préfet ñu teg en place une matrice très rapide de suivi des diligences à mettre en œuvre pour que le centre de santé soit renforcé dans le meilleur délai, mais aussi pour que le bloc opératoire ouvre le plus rapidement possible.